بالله من ساعة اليوم وإني أعيدها بك وذريتها من ساعة اليوم أبدا أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فتاه هاب يا رزاق يا ملكي لفتاه هب لي واسرد كل أنا على أسيرا عاجلا بسرعة ورجلا حتى أقيم لدين الله أركعنا يسير دعوني بالتوبة وحمي وقيني أذى الورع وتجيب لي لسمس كان عليك السماء ولا أدري وأهلا بها مشاركا لو ولا أجب وسد الشمال حسن لي محمد قدم الله معه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته laaj nga la bi kenn laajoon laaj bu am na lool mooy la loolu yooyu wax naan man xadarullah xaq xadri yi ay boobu boobu day man yaakaar naa premier at yoo xam ne baa ko xamee léegi dama jaaxala jaaxala jaaxala jaaxal jaaxal ba waaw jaaxal ma daal dëgg dëgg jaaxal daal jaaxal ko maanaam damaa xadarul la xaq xadri yàlla jox ñu ko ñu ko daal loolu loolu lu yéeme la du raglu la góor yàlla yi ngay dégg yëpp maanaam loolu jaxa jaxale maanaam yàlla ci boppam amoon gu amoon gu dëggu ga jaxal na ñëpp ñun ñëpp xam nañ ne li daan al wujudu wahbi yi mooy noonu lu am du yàlla wujudu wahbi yi nga sax am nga dañ ne dañ la ko sarax yàlla mooy al wujudu xaqaani yi mooy dëgg-dëgg am dëgg mooy yàlla ku du yàlla amoo koo xam ne sax am ak ak njëgën da koo am amul mujj loola du am am mooy loo dab katew loo xam ne nii tàmbalikaay amu ko amatu yemukaay soo xoolee nag joor day wéy soo xoolee tam day wéy loola mooy ak am dëgg yàlla nag loolu mooy ak am melokaanam woowu la yor te li li jaaxal nit mooy nit nag moom am tàmbali amu yemu moo tax xel mi nga xam ne day day takk ci temps ak espace te yàlla bind temps ak espace xam ne yàlla bind temps ak espace kon léegi nu ko nit ki di joxe gëddaam ay bi xam naa sax kon sonalu nit ñi ci ne leen jox leen gëdd yàlla ci dëgg dëgg dayam kooku moom mënisu ko sallallahu taala alayhi wa sallam nee woon na laa ya'lamu laa illallah yàlla kenn xamul ku ku yëf yi kay mooy tool bi bi mu indi sëñ Modou Amin dafa paal moomee bu yàlla na ko yàlla tool milliard saa woote xelkom wax nañ ne day ñàkk bu du këram da koy ñàkk xam ne moom ko soxlaat yow yaa ngi koy fekk xelkom rakkam yi ñu wax ne wala mbokkam mu ñelawoon xuma rakkam xuma mbokkam mu ñelawoon moo xam ne ca xel koom la ko doon dëje si ñel yo ko mujj mujj wax nag mu dem ja évi nga xamante ne nga xamante ne mooy mooy ñooña soxna may kubra bam bam làqoo ñu ñu pëgg sëñ Abdou Xaadir fi yoor yoor pëgg ko di di ko ko wax mu génn na lan la ñu ne ko soxna may dama dama ko làqu mu dama tàng jër daal daal di daal daal di ne bu ko kenn fëggati di ko wax loolu ndax dafa nekk ci liggéey bi xam ne moom liggéey bi liggéey bi bi ci la nekk kooku kooku xam moom tuuti wàcc na suñ daam abdourahman moo mas romb kenn koy wattu ab barab ci armeel yi mu laaj na kii kii gum doon ñëw kii day wattu barab sàngam ma daal di fàqu yat daal di ne ko ko kii liggéeyal yàlla ba wàcc tëdd fii yow yow yow ngay toog moom dama liggéey nga xam ne nga ne kon tool bi dayoo bi kon dayoo bi yàlla bi mooy borom bi digle nañu dem leen ci sama tool bi ngaa yow occ ko fa di seet leen maanaam wuti maqaamaat ak ci yàlla gi lépp kenn xamul lu mu doon alxuraan boo boo ko dee jàng saahir su muy wax doo ci gis-gis lan laa la àggal ci yàlla dafa ci wax ci ci gaa yi ne waaw sunu borom bu bu ñu yebalee ca tool ba yooyu yow nga bàyyi sa tool ba dem ci dem ci xadra ba boo boo demee sunu borom ne ne la loolu wut ah yow ci ca tool balaa lay ko doon. si xaboy nit yi bustaani dama góorgóorloo ba àgg ca xadra ba waxante bu borom bi sunu borom ci ci ci ne ko demal fa nga jóge foo fa laa ne soo ma bëggee gis nag da ngay summiku ci sa bopp ku ne xam ne summiku ci boppam loola moom mooy ak faram mooy ñàkk amati loolu xalaat loolu laa ñaan borom bi naa ko naa ko frontière bi dox suñu diggante dindil ma ko waaw ma nga xam ne moom moom dafa namu yàlla maanaam yàlla da koo tex texaan yàlla gi da koo tex texaan ba mu bëgg maanaam maanaam moom mu far yàlla am yàlla amoon ci doomu nekk moom mu far su boobaa moom day fiix loolu lépp mooy leer gi da ko tax te xam yàlla maanaam man la joxe yàlla gëddaam ba noppi am luy génn ko ci moom ni am am boobu li génn ko ci moom loola dafay day gàllankoor liggéey bi soxna surtout gaawaan mu tëdd maa ngoog ñaari doom jigéen ñoo ñoo ko yàlla saraxoon damay wax si Aliou Ndiaye ne ko damay am ñaari doom yu jigéen yàlla na toog ma nag bëgg yàlla bëgg doom ma xam ne kon loolu loolu kon dama gàllankoor ci liggéey bi loolu moom bëgg nag seen bambur yóbbul ma leen àjjana ne ko de wax naa ko doon dem si suñu tubaab ji ne ko waaye ku ma ko jox rek maanaam mu lay ba dem loolu léegi da ne ko soo koy bëgg rek soo koy xam te te mën dara rek. noonu ñoom ñetti weer la ñuy wax wala ci wàllu jël su kattan rek daal di nga daal di di dem àjjana loola ñu ne nga xam ne nit koo xam ne leeral yàlla gi da ko textexaan ba mu xam ne kat lépp loo xam ne gàllankoor la ci moom man di doon luy luy ci luy de loola far ci ci moom demal ci Ibrahima alayhi salaam ba ko suñu boom dee ren di loo doomam ji Ismaïl xulle gaa tax xaritoo ga xaritoo ga far ga yàlla xaritam dëgg lay musibaal ndax daa bëgg a far ku dul moom ca ca xol ba yàlla da yàlla wéet gi mu wéet daa métti axat la de wéet nag képp ku ne xaritoo moom nga yàlla day wéet ak yow wéet ak yow ci lépp wéet ak yow ba nga xam ne sa xol bi dara dara dara du te nekkati himma na ko Cheikh Bukhari Jaani waxe woon yitte gaa yooyu jëm ci yàlla mu ne mooy ñoo xam moo yitte dëgg dëgg nee na mooy mooy koo xam ne xolam bi gende kub àllaaxira di yóbbu àdduna li àllaaxira sax xelam du ci ne yàlla rek rek moo ngi jëm dañ waa jëman baax a dem ñooñee jong yooyu ceddo yi doon sonal ñu yónnee jëwriñ yi yónnee te da dañu dañu sonal bëgg daal ñu def ñu ci loi bi sëñ bi bi ne yéen ku ànd nag àndu maag moom ku ànd ak moom nga nga alax àndu maag moom ku ànd ak man ku ànd ak man ngir yàlla nag bisimilah nga nga nga xam ne loolu loolu muy wiital yàlla dëgg dëgg dëgg yàlla rek ñëwuma kenn ajal soo si Ibrahima Fall ba mu iblu fi di waa ne ko bu yaakaar ci àdduna am mbaar am mbaar man nag am ne bu lay yiir xam ne moom yow kon da ngay da da da wala xii ajana ci ci la bokk saa boo xoolee sa xol gis nga bëgg nga bëgg nga ajana kon yow kon yow yàlla kon wutal nga ko sa xol bu ko kon léegi xatal nga ci borom bi te kat suñu borom nag ci laa fiir waaw ci baat yi nga xam ne ñoom ay fukk xaalit na ñoom ñoom ñoom li fi xarit tara ñoom la ci génne dañ dañ daal di jëg yaakaar na ñoom kat yàlla bu ëllëgee nag da na yool ak fay dafa ne nag xam waaye jàmbar lañ di nag ne xam nag ab buur bu yor ay ay laram ay jaamam di leen liggéeyloo ci solwa kenn ci ñoom dof ñëw fi moom naa ko liggéey bi noppi na mu ko waaw noppi na mu ko waaw mu ne ko looy wut mu ne ko xanaa nag jël sama pay lar ba daa fàtte ne mu amut xam nga xorru mo xorru mu am xorru koo xam ne kenn yilifi ko kooku mu am te te kii moom du du du xorru daa si gor de as gor amul góoru ci dara lu may lu may ak njaam ku ku ku ku ku góor ci ci njaam nag la koy jik mooy rafetal njaam nga lu mu ko gën a nangu njaam nga rek lu mu lu mu ko gën a neexul neexul rek njaam gi nag bokk na ci bokk na ci li koy xajamal mooy nga am leneen looy jaamu lu wóoteeg kala bind ak kala moom yàlla ne ana ahna ashraka képp ko ma booleel ma ma ma bàyyi jëlaat moom suñ duwaay li nga waaja bu bu yàlla wéyee ak yéen tamit suñu suñu ñu ko taxawal bu ñooñu wéyee man dé dé desitu ma ko yàlla dama amee. laa ilaha illallah yàlla ak yàlla yéen yéen tamit rek ay sa xalaat Muhammad Rasulullah waaw amul kenn koo xam ne liggéeyu yàlla bii moo ngi néewutoon du jóg amul de amul de amul de ah yàlla kay moo lay terali ci yow jaam bi boole la ci liggéey bi ku ku bëgg a teral rek kooku la yëkkati yaa ngi doon te nga muy suñu tuwaat koo ma doon rek yàlla laa teg bëgg laa teral rek daal lay teg ci liggéey bi waaw ci waaye seen nikku ci dara dara boo ñëwutoo liggéey ba day day gën rek day gën a baax donc nag day gën a baax rek ndax ndax suñ suñu tuwaat ba ca ca bindu keroog ca tafsir bi ma ma naan yàlla musul ci bëgg lu alaansi sul jabbaar bëggut waaw namm lu lu yàlla namut ndax moo tax su subante yi bokkoon na ci seen doxeen nga tarakul ixtiyaar sarabul ixtiyaar ak tarku tadbiir bàyyi yàlla ci lépp ndax yàlla boo ko bàyyiwut lépp it moom la nga bëgg suuf bu déglu la sero lay doon sero lay doon moom yàlla lim lim bëgg rek am maanaam léegi xas bu gis nga waxoon ci wax ko te mooy destination nit ki ak jaam bi moom na na góorgóorlu rek destination bépp itam bépp di moom bépp di di yàlla mu def ca la mu cëri cëri jëf am jaxat bokkoon ci mu xati muri gin ya am tax si la moom mas naa ko siyaare ji ci mujj maanaam waaw doom de su su fi bàyyi ko woon na ngeen may ñaanal ndax day xol bi yéene ne waaye cër yi mu mënta jëf loola loola mooy sayyidina Musa alayhi salaam comme ne yàlla man de dama lottu ci sant sëñ bi sëñ bi ne ko lottu kooku su ma ne ko lottu kooku nga lottu ci sant mooy sant ndax ndax dara maanaam ab jaam moom mënta mënta joxe dëgg dëgg yi sant yàlla ndax am na xadis bu naan suñu moom bëgg na lool neex na ko lool tib boo boo boo sax ne subhanallah gu wax boo na naan ne subhanallah subhanallahi yow nga xam di subhanallah wasim seetal seetal xas bi boobu kat boo ko waxee téeméer yoon mel nga ne fukki junni fukki junni dinaar wala yooyu sarxe nga ko da nga am fukki junni yoon boo ko defee téeméer yoon rek am am di yool subhanallahi boobu xam di subhanallahi nga xamante ne aka aka ak yomb te dégg nga Seydina Ibrahim ba ko Seydina Muhammad sallam laajee ci carñaan nga ne ko fii moom lu fi gën a jëmbat mu fi gën a dox moom mu ne ko xanaa nag subhanallahi boobu xam di subhanallahi lasin soo koy waxat malaaka kay kay di la tabaxal waaye am nañu am nañu fa lu ñoom saa boo noppee ñoom subhanallahi boobu xam di subhanallahi lasin nga xamante ne kon yàlla baat yooyu nga wax kat moo ne da nga koy da nga koy dàqal bépp manqué bi yàlla bu manqué wut boo ko dàqal seen manqué wut boo ko ko dàqalee manqué wut waaye subhanallahi wa hamdihi subhanal azim ginnaaw balaa teg tey yi tasbihaat yooyu ci la ñuy dunde yàlla bëgg na kon yow kon balaa tey ruu lañ yooyu ruu nga sa ruu gi nag kon am na lu muy dunde mooy tasbih la war dunde lu am am solo la junj la bu am solo boo xam ne tasbihaat yi subhaanallahi wa hamdihi subhaanallahi wa ñu ñu di ko wayantoo le suñu xol lu am am solo la ndax ndax salaatu ala nabi tedd na lool baax na lool jëm yàlla ji nag jox ko gëddaam ji mooy mooy nga tàmbalee ci yàlla subhaanallahi wa hamdihi subhaanallahi nga nekk sax boo boo xaree sax war bàyyi lépp rek fan ne ca incha allah abakri asi bi daa waxoon ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam ca gis yooyu ñu gis ne ko waaw man day su ma nee waxee laa ilaha illallah damay ragal a wax leneen mu ne ko waaw ba nga waxee laa ilaha illallah dugg gën naa ca ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam tax nga nga xam loola kooku kon kii dugg na ci nga xam ne loola lépp mooy ñoom jéem koo jox gëddam nga gëddam nga lu lu lu jafe la mag ne ko jéemoon dégg nga ñu amul junne di di salik parce que suñu tubaab yi nekk rek ci ci salik si waaru ko yaakaar arab naa fi saxar ba ba mu demee ba sàq kenn ci jaay baax gis ko laaj ko ne ko waaw yéen noonu la defe nag si borom ne ko lépp naaw na doon wax ak coow yaag te baat yu diis yaag yu xóot yaag yëpp maanaam yu xóot yëpp lépp naaw na xam nga lu ko defa ay rakk yu néew yoo xam ne yu weef yoo xam ne kat bëriwut xam ne daanaa ko làqatu fajar di ko def xam ne kenn kenn du ma gis yooyu doo nga doo nga président lépp naaw na aa lépp naaw na dene kon kon kooka lu ko waral xudduus ja maanaam xudduus ba al xudduus su dëgg dëgg aw tur la kooka yu turam wa de al xudduus su turam wa la xam ne kon moom dafa set wëcc wëcc looy def nag ba mu set wëcc nag ak ay jafe asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu